jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci seen chaîne d'information ñoomaat mbégte di leen dëgtal xabaar yi fi ruus tey jile mu ñal nag wàllum politique langue gi nga xam te moom la ñu woowee taxawu Sénégal fi mu toll nii nag daanaka dañoo nekk ci ak pëccëxoo li ko waral du leen nag lu dul gi nga xam am nañ ko ngir booloowaat ak parti socialiste loole nag daanaka jur na coow lu bëri jamono yi ñu génn ci këru tasukaayu xibaar yu bëree bëri ndax nag ñoom ñu ngi doon xamle ni ki nga xam te moom moo jiite parti socialiste jamono jile di soxna Aminata Mbengue Ndiaye Ndiaye dafa warona dajé ak ki di Khalifa Ababacar Sall mi sos taxawu Sénégal ngir waxtaane nak lépp lu jëm ci wat njabotuk parti socialiste way ñi nga xam te nag ñoom ñoo di waa taxawu Sénégal bari na ci kilifa ya ñu japp rek ni bobu lépp dajé dal amul benn solo te itamit soxlu wuñu parti socialiste ngir xex nak ba jot ci réewum Sénégal lolé mo nekk seen gis-gis nam nak ci benen wàll wa amna ño ñoo xamante ni jàpp nañ dal ni li nga xam te moom moo nekk yéene wa taxawu Sénégal pour mu antu rek faaw ñu and ak wa parti socialiste socialiste loolee nekk kon ay gis-gis yu waraloo lool ci li nga xam te moom moo nekk biir taxawu Sénégal ba jamono jile nag ñu mën a xam ni daal dina jur ak pëcc xoolal ci biir làng googule waaye naka terewul ba léegi ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci bopp ñaari kuréel yooyu le moo xam parti socialiste ak taxawu Sénégal jamono jile daal bu ñu sukkandikoo ci kër tasukaay xibaare rawatina kër gii di Les Échos mi nga xam moo xëye tey andi xabaar boobule mu ne daal waxtaan mu ngi am ci seen diggé ngir nag fexe ba boolewaat kër yooyu le ci mën a xam daal mooy kii nga xam moom moo di Khalifa Ababacar Sall moom bi nga xamante ni mer na rek génn ci parti socialiste nag ca la daal di woon taxawal kuréel googu nga xam te moom la ñuy wax taxawu ndakaaru daal di nag dem ci jongantey municipal yi nga xam te amoon na fi ba daal di nekk meerum ndakaaru nag gën a li nga xam te moom moo nekk kon langu googu ba mu mujj sax doon taxawu Sénégal ak euh, ni nga xam te noonu la ñuy duggee ci biir coalition euh, Yewwi Askan bi mu nekkoon nag langu goo xamante ni amoon na solo lool te ñi nga xam ñoo ci gënoon a fës bokk ci Khalifa Babacar Sall mi nekkoon maire bu dakaar waaye tamit euh, Barthélemy Diaz mi nga xam te ni kon moom moo ko wutu jamono jële ca mairie bopp euh, Ndakaaru ñoom nag fi mu toll ni kon kàddu yu waraloo lool ci biir taxawu Sénégal ndax nag danañu delluwaat ci biir parti socialist am déet waaye itam ndax nag njabootu parti socialiste ci ñëpp danañu dajawaat doon benn ci ak fàttali nag ci biir charte yi nga xam ti ñoo nekk ci biir parti socialiste dañuy daal di dàq rek képp koo xamante ni yaa ngi ci biir parti boobule nga daal di sos sa kuréelu bopp bokk ci geneenu kurel ñom parti socialiste nak, bokul ci li nga xam ñom ah, dañu koy nangu rek ci seen biir parti le lu ni mel sax motax ba ñu bëree bëri di ay kilifa yu ca nekkon dal di mer nak gedd dem sos seen langi bop ñen yi tamit ñu dakk leen ci le parti ci ben mën nañ ci lim ku ci deme ni Malick noel Seck bi nga xam ni mom taxawon na tem ne dañu wara amalat ab congrès ci biir parti socialiste ndax jamono jojule, nga xamni ni ki di Ousmane Tanor Dieng mo ca nekkon nak mom jappon na ni dem na ay jongante lu bëree bëri te jëlul ndam li kon nak dañu waro waroon a xoolaat taxawaayu parti socialiste waaye itam ginnaaw mosul am congrès gannaaw ba nga xam ci Abdou Diouf jóge na fi ak léegi ñu amal ab congrès xool nag ndax dañuy wëy nekkal ki nga xam ci moom moo di Ousmane Tanor Dieng ci bopp ba am déet ci coow loolee nag lañ ko daal di woon dàqe ci biir parti politique bi. yeneen i kilifa yo xam itam dàqoon nañ leen ci biir parti socialiste amna ku ci demé ni maître ay satatal sal mi nga xam nak mom dal di nay sos lang gi nga xam mom lañuy wowe oser l'avenir mom sax ñu bari ndortone nañu ni ba mu joggé ci parti socialiste fay dem and ak Khalifa Babacar sal ak Barthélemy Diaz waye nak lu ni mel mujul am moom nak dafa dal di won rek sos euh, kureluk bopam tuddé ko oser l'avenir bokk itam ci ay jongante yu bari yo xam te ni am ci biir réewum Sénégal ba ni nga xam noné nak lay dal di ñew fekk ci njitu réew bi di Macky Sall mu tabb ko joriñ yor lu jëm ci walum affaires étrangères ki nga xam te moom moo di xalifa Babacar Sall ak Barthélemy Diaz ñoom itam noonee la seen i demee gannaaw ba nga xam te fas yéene ñu taxawal yeneen i kuréel ci biir parti bi ñoom it ca lañ leen daal di dàqe rek génne leen parti socialiste ñu taxawal seen mouvement taxawu Sénégal waaye itam taxawu Dakar ñoom nag bokkaat nañu ci ay jogante yu bëri waaye parti socialist moom dafa woon ba léegi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax nag ñaari jongante njiitu réew yi fi jóge yëpp ak jongante pencum ndaw réew mi ñoom amuñu candidat kii di président Macky Sall moom moo nekkoon seen candidat wala yi itam moo leen doon tàndal candidat ci yeneen xeetu jongante yi nga xamante ni amoon na fi loolee nag tax ba parti socialiste daal daanaka ba ñu jógee ci nguur gi ba léegi ci Abdou Diouf seen doole taxatu ko deme noonu dajewaat nag ci seen biir boole ñëpp ñoo xamante ne ni génnoon nañu ku ci demee ni xalifa Sall Barthélémy Dias ak Aïssata Tall Sall xëy na dana yokkaat seen doole ci biir làng politique gi fii ci Sénégal. waaye ba tey ci wàllum xabaar ca yenn la ñuy dem foofee nag euh, maire ba ñi nga xam te ñoom ñoo di conseillers municipaux yi nag dañ koy tuumaal ni nag dafa daal di luubal xaalis bu bëree bëri gannaaw ba nga xamante ni kon jël na ay terrain yoo xamante nii daal na koy jaay mu toll nag ci trois cent terrain ñu ne nag loolee ba nga xamante ni moom maire bi jaay na ko daal koppar ya ca tukkee dugalu ko ci biir euh, keesu trésor public lu di mel nag tax ba kon ñoo ñi nga xam te ñoom ñoo di conseillers municipaux yi daal jàpp ne xaalis boobee toll ci limu 1 eh, milliard de francs CFA mom maire ba nak daf ko jere rek dugal ko ci nafay bopam ba tax nak ñom ñuy sakku ci mom nak mu daal di wat ginnaaw ci noné nga xamante noné lay doxale indi ci ay léra way tamit jël ko paré delé ko fa nga xamante ni foofee la waruna dugg lu mat ñaar fukki conseil municipal nak ñom ñoo xeyoon jakarlo ak way taskatu xibaari ngir indi ay léral ci mbir momul té nee nak duñu ci yam ndax fassé nañu daal di bind ab bataaxal jagleel ko kilifa yi dañu dem daal di kalaame fa nga xam mom modi ci ofnak way tamit ak ci cour de comptes bu ko defee nag ñu daal di ñëw foofee nga xam te moom moo di yéen lañ bët na nga xam te noonee la kilifa ga di doxale ndax nag moom jàpp nañ ma moom Massamba Mbengue daal na xam te noonee lay doxale ci biir gox ba eh, jaarul yoon loolee taxoon nag kon ba ñi xam te kon ñoom ñoo di conseillers municipaux yi ci eh, jiital ki nga xam te moom la ñu wooy Masoogi Thiandoum daal di jane woon ak way taskotu xibaar yi nag ngir nag daal di xamle rek ni kon ñoom kontaanuñu benn yoon ca doxalinu maire ba waaye ki nga xam te tamit moo di mbay Sow noonee la daal di xamle rek mbir ma ni kon Mass Mbengue daal nu ko neex lay doxale foofee ca yéen te lépp loo xam ti ko ñeel na wàllum suuf sa daal na mu koy jaayee ay ki tamit na muy jëfandikoo koppar ya dara jaaru ca yoon ñi nga xam nak ñom ñoo di Futur Media dal lañu xey wo ki nga xam mom modi di maire ba ñuy tuumal di samba Mbeng ngir nak am lu gëna leer ci ciow lolé nga xam mom mo moo judd ca diwaanu yenn mom nak la nga xam xamlé nako dal moy fan yi ñu dëgmal dana andi ay tontu ci mbir momulé bu ko défé nak dal di léral la nga xam mom mo ci moo li xew dal moy ciowul suuf dal bari na lool lo xam ni jur euh, ci biir Sénégal jamono rawati na nak ci ba nga xamante ni réew mi Bassirou Diomaye fay dal di na jël bëgg rek dakkal liggéey yu bëree bëri yoo xam te ñeel na suuf ci biir Sénégal moo xam ci corniche bu Ndakaaru ci filao ya nekk ci Géejuwaay ca Mbuurkaat waaye tamit ci gox yu bëri yoo xamante ni kon daanaka suuf sa nañu koy jëfandikoo rek dañu jàpp ni jaarul yoon waaye tamit dafa am pasar pasare loolee tax nag moom ci digg yi nga xamante ni defoon nañ ko askanu Sénégal daal mu bokk ci dogal yi mu njëkk jël mooy dakkal boobu lépp liggéey waaye yéen nag ñoom ci njiital conseil municipaux yi fas kër gi nga xam te moom moo di nag ak Cour des comptes ngir nag ñu ñëw saytuwaat doxalinu ko Massamba Mbengue rawatina nag ci koppar yooyu nga xam ne dañ ko koy jiñ daal ni daf ko sàkkal pexe mu toll ci un milliard de francs fa gannaaw ba mu jaayee lu ëpp euh, ñetti téeméeri terrain nag daal di jël koppar yi rek dugalu ko ci trésor public loole di kàddu yi nga xam te ni kon Massogim daal na koy yëkkati rek euh, jagleel ko way taskatu xibaar yi ne kon ki nga xam te moom moo di seen maire di Massamba Mbengue noonee la doxale mbokk yi loolu moo nekkoon xabaar yi fi ruusoon tey jile ñu amoon mbégte doon leen ko dégtal di leen jaajëfal bu baax ci topp gi ci seen chaîne d'information di leen jox dig daje ci beneen nopp saa jërë ngeen jëf ci topp gi